maa leen di fay yéen ñëpp ñi ma fekk ci bunt bi ak ñi ma fekk ci biir nuyu naa leen ah démb nag moom kontaan naa moom ci Jalika Jalika moom démb dama kontaan si moom joor moom bett na ma billaahi joor moom ni mu doxalee démb ci anniversaire doom surtout moom doomam la sax Amina doomam la ni mu ko humilier nii ci kanamu ñëpp ci ay kanamu papaam kanamu yaayam ay kanamu maamam tantaam loolu waru koo def joor nag bett na ma torop bett na ma torop woon na yàlla mais nag mais nag li ko Jalika wax rek moo fi nekk Jalika moom de moom Dakar dóor 1-0 waaw da ko dóor 1-0 waaye nag kontaanu ma kontaanu ma tamit ci yaayu Cheikh Diagne mën daal mère Diagne daal man daal mère Diagne jaaxal na ma mère Diagne nag na bàyyi xale yi say seen sëy nag na bàyyi xale yi say seen sëy Marème yow moom xoolal no comment laal la yow moom dangaa déconné démb joxal Cheikh li mu moom nag joxal Cheikh ayam. da ka kaa war a jox ay ba mu mat sëkk ñaari fan ñaari fan jox ko ayam bokk ah ndax bu demee ci mareem mareem da jox ayam da ko jox ayam ah man ma ñëw ci beneen bi biram ah biram yow moom yow moom sàcc nga kon ndeke ah biram yow moom waroo def lii moom sa mag surtout maanaam sa jabar waroo sàcc sax ay busoom bu ko dugal sa poche naan ah ëpp na daal man daal série bi daal fu ne nii moom kontaan naa trop kontaan naa trop lu xew TV waaw wasalaam. Waaye maa nekkoon seen maa leen di bëggee maa leen bëggee bu baax na leen def yéen a ngi ci jàmm na ngi am jàmm bu baax waaw bi de neexati na moom séri bi neexati na torop macha allah macha allah neex na lool kontaan nag tey moom lala weere na laala weere na. ndax ba mu ànd ak Cheikh ci anniversaire bi moo ngi toog ak Cheikh ci wetam di ko teg loxoog lu nekk bañ ñëw ci kër gi mu jàmmul Cheikh nangutul wax waxi Cheikh di wax naan ay infection yu ma xamul laal la yaa ngi bàyyi sa loxo nag moom yi yaa ngi bàyyi sa loxo Alla séeréer sa jëkkër comme ni nga doon def waaw di ko woowee ajjana di ko defar yu baax comme nañ ko doon defee yokku ko sax nga war a def waaye nag fii nga taxaw nii moom baaxut li nekk sa xol bi du mu sa deñ tànk jëlewoo ko ci du mu sa deñ waaw mën a dindi delluwaat ci li nga nekkoon bii bi nga nekkoon dund ko dund ko dàq ni nga ko doon dundee loolu nga war def ah Marème a ngi lay dóor nag mi ngi lay dóor te yógoo ko yaa ngi koy yëg sax ndax bàyyi xel gi nga ko bàyyi xel moo tax munoo def dara loo def day metti waaye soo defoon ni mel ni nekku fi comme ni nga doon def ne ma neex lool noonu la nga war a continuer di ko def waaw ni moom mare moom moo baatare muy sëy sëy bi ñu wax lu ni ak du mer su meree jëkkëram dina fexe ba génnaat ci mu jëppëere jëkkëram lotee mën a def noonu mer du ñàkk mais soo meree dafay jeex mer dafa war a jeex waaw mer bi moom war na jeex nga wut jàmm ci mereem wut seet jàmm ci ci seen kër neex ngeen xappe waaw bëgge waaye yow dem voyage ñëpp naan bu ñu daal la ñëwee dina neex dina neex nga ñëw teeroo nit ñi lii yaa yaa de sa way yaa ngi yàq ni nga doon def ba mu baax continué ko waaw biram nag moom taskir jaambur la ñëw pour des ci tas ci na ko sax tas na ko ba pare ndax xam na ne bis laal la moom di ki yee xamee ni jël nañ or bi mareem la koy ji ndax lu musta am ci kër bu fa amee ñu ne gan ga la kon mareem moom mooy tax waaw tas na kër jaambur ba pare ñu doon wax yaayam naan indi palaat bi tegal la ko dina ko tegal yaayam nag ñu ko bëgg ndax bis bu la la xamee ne bis boo ko gisee xoolee bis yu gisu ko mareem la ko ji te boobaa problème dina am des na kër jàmbur waaye ko jabaram du bon waaw bon na torop joor moom kenn xamul ban façon nit la waaw bon ma ba jaaxal ma yow xale boo xamante ni nii ah kiñ la gëj a gis yaayam ah, ci anniversaire sunu anniversaire gato bi sax kenn dëggagu ko nga ne anniversaire bi jeex na anniversaire bi jeex na ki moo réew te yabaate waaye na xam ne jëli fi fekk jëli ka rek di xale fulla fayda ak sincérité rek wan na ko mat sëkk te xeexut fayu xulowut xasantewut def na li mu war a def daal ci temps ak heure kontaan naa ci moom trop moom it macha allah neex na trop kontaan nañ daal ci série bi moom maîtresse daal moom li ñuy yeecu yu bari waaw ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax damay liggéey lu ci bari ci youtube bi laa koy seetaan mais kontaan naa ci trop merci yi ca kaw ca kanam yàlla na leen yàlla jàppale da ngeen di ngeen ci ngeen am ci lu kawe seen njort waaw si la sëñ Fall asalaamaaleykum waa série maîtresse waaw te naa participer nag ci kii bi maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp di leen bëggee bu baax a baax alhamdulilah Euh, man tam bu may ñëw damay ñëw ci kaawu biram ndax biram jël na takkaay bi te yóbbu ko mais du pour dara pour jiiñ Marème sàcc moo tax ñu def loolu yéen loolu ngeen comprendre biram moom daa mel ni yaay ji la àndal lu muy joué nii yëpp yaayam lay jéem a jàppale en plus jalika non lu muy def doomu kii maanaam jalika astafurlah joor du muy def doomu jalika bi vraiment métti na mu trop te bu ñu koy bàyyi biram bu koy bàyyi ci kooku xale boobu mooy tax mu bàyyi ko parce que biram bu xëyee liggéey day traité xale bi te xale mémoire bi yaatuwul waroo ko di tribuer da ko war a di neexal pour muy gagné vie am ak euh, mbégteem affaire yooyu mais moom toujours day teg xale bi ay affaire yoo xamante ne muy loolu daal loolu mën na yóbbu mémoire bi te loolu du yoon. man jàpp naa ne nag biram xëy na mën na ko ci bett na te boobaa du neex ci côté parce que na xam ne doom bu jigéen ci xoolu baay la ci xolu baay la sas leer laa la wax nii ku amul doom bu jigéen rek xamul li ci nekk doom bu jigéen pàppam da cee kole te biram dafa fonk xale bi te ke biram bu demee liggéey te koy tey ci kër yi di ko maltraité xoolal keroog bu ko xale bi ne na ko may ndox da koo dàq comme xaj mais xale kenn du ko def noonu te na xam ne nag xale day enregistré loo ko def ci ndaw ba mu mag mu ngi ci biir bopp bi waaw mais yaakaaruma ne aussi sëyam bi dina yàgg parce que biram commencé na am problème ci moom bon te dafa yaakaar ne faj na xar moo tax mu dugg ci mais problème moo tax moo moo da ko yokk problème rek waaw jaa ngeen jëf maa leen di remercier bu baax di leen wax ni série bi wax dëgg si yàlla macha allah kontaan naa ci trop man du ma raw parce que ay exemplaires yu bari ngeen di ci joxe Lalla nag bu bu mu wàccee boppam moo gën muy jéem a teg see xel mënul teg see xel mënu ko teg xel lu mu jàpp yàlla la na ko bàyyi mu fàtte démb mu xool luy ñëw ci kanam moo gën ci moom. ok merci beaucoup. salaam salaamaaleykum waa li xew TV maa leen ziar di leen nuyu yéen ñëpp waa di wax ni kontaan naa daal ci série bi série bi démb bi nag tey laa ko seetaan normal waaw ma ne woon naa sànni sama xalaat mais Jalika daal ni mu def joor kontaan naa ci trop waaw ni mu def joor moom kontaan naa ci torop torop torop teg na ko ci palaasam te sonn ci kanta laala nag moom ah laala <laughs> di nu defalee ki ñëw di jënd ci moom ah pour ma bëgg naa de mu defalee noonu boppam ah pour ma mën a gérer ménageam ménageam tranquillement euh, kanta mare moom mare man daf may faj man daf ma neex parce que dafa sincère naturel ci li muy dund Ah, Marème moom vraiment neex na ma trop ah, Jalika nag ma koy euh, kii di ko conseiller mu accepté waa jooju waaw ah, mu dund dundam vi viom waaw vi jël ay njabootam teg ko seen wet joor moom vraiment ni muy def euh, kii ni muy def euh, xale bi metti na ma trop en tant que jigéen metti na ma trop trop trop trop ba ci kanam yàlla euh, su ma sañoon sax su may seetaan damay tëb côté boobu suy wax xale bi dama ko suivre parce que dem maa ko koy def dafa metti dama yaakaar ne joor yorul xolu jullit yorul xolu yaay parce que moom déjà moom amoon na jëkkër mariage forcé am ci doom bu xamoon li nga xamante ne mooy li ci doom yaakaar naa ne def doomu jàmbur noonu moom ni mu mel ak Jalika seen relation ni mel ah pour man de waroon na war a mën a téye doomu Jalika yor ko yor bu rafet ba yaayam bu gisee lool sax au moins kontaan ci ba euh, xaw a taxal seen diggante waaw kanta Cheikh nag dama koy digal na téye ñaari jabaram yemale leen respecté leen laala xëccal ci boobu rek ak madem ngeen fee dafa laale neexal kër gi kanta biram moom li mu def mën naa ne mën nañ ci taxal euh, mareem waaw laala bu demee xool ay bijoux gisi ko mareem la koy taxal loolu moom sans sûr waaw jaajëf maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp di leen ziar ah raaki nag moom ah, na jéema Moustapha na jéema kii raaki rek takku ko parce que Racky moom vraiment elle est gentille merci beaucoup. waaw ah, asalaamaaleykum waaw waa série Maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu maa leen di nuyu di waaw man damaa bëgg a participer li ma jeexal comme ni ko kii dugg waxoon léegi rek mooy que la ni mu menoon dal bi mu àndaloon am yërmande am sutura si jëkkëram man pour man wujj warul tax mu changé. doxinam parce que saaw bu amee bu yàggee sax maanaam Cheikh Tidiane cofeel bu mu amoon Cheikh Tidiane bi mu amoon ci moom day dem ba day wàññeeku parce que kee day jël lépp parce que Marème moom ngi profité di def lu mu mën di jaay joŋee def lépp lu jëkkëram bëgg topp bànneexam yow mi nga xam ne yaaram def yaay aawo di nay jëkkër yow yaaram def lépp loo xam te ne moo neex jëkkër am na mu doon demee su ko continué woon sax am na nu muy demee bu demee ba mu yàgg yàgg sax moom day retrouver encore comme ni mu meloon ak kii laal mais laalu ni mu defee nii du yoon parce que su defee rek bu demee ba mu yàgg Marème day jël palaatam lépp lay jël nangu si moom sootu mën na cee yàqu waaw parce comme ni ko femme bi waxee léegi rek Marème moom dugg na génne ko fi yombul kon nag mu mel ni mu meloon rek waaw nam doon woowee àjjana wax dëgg àjjana dafa neexoon jëkkëram nit ñëpp war cee jël référence mais moom am bu jur di reculer moom yal nañ ci yàlla musal waaw man su doon mën daal defaraat programme bu baax bañ rëy daal xam naa instant bi ñëg ak rëy mais loolu lu baaxul jigéen du rëy du ñëpp waaw moom du solution sama fañoon daal defaraat programme baax man comme nam menoon nekk nekk daam première daam comme nam menoon ñëpp du rëy ci moom mais bu defee nii kon ñi nga xam ne ñeneen ñooy aaw mi ngi def ah normal ndax dëgg yàlla waaw maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal nekk leen ci jàmm. asalaamaaleykum na ngeen def yéen a ngi ci jàmm la mën naa leen bari bàyyi yéen ci jàmm la mën naa leen bari série bi passé na li mu si gën a ci jëmmam dafa war a bàyyi li mu def te xam ne amee naa doomu ma bàyyi yenn yi mu def waaw bu dul dara sax xanaa mu xool si télé xanaa moom kon mos na bëgg Jalika waaye Jalika rek am fula Jalika moom mère bi nag moom Jalika moom gisoo ci mariage bi nag ci def lii joor wax wax yi dëgg xam ne jooru koy xam na Jalika faarewut bi waaw waaw Moustapha nag moom it li ko mère li ko paa bi jox da ko war a jël lépp tegal ko rakk ne rakk bu fekkee këyit woo bu yor ci la résultat yi ne bu ko liiree moo tegal ko mu waaw salaam sama waatim ci ngeen nekk may nu am jàmm bu baax waaw man la taalibe Cheikh man la taalibe sëriñ Babacar Sy waaw dama bëggoon euh, wax ci séeréer bi mais avant ma ci wax dama bëggoon euh, xamal sama mbokku jigéen ñi di wax ak sama mbokku góor ñi di envoyé vocal di wax ñu def un peu de respect waaw parce que message yi may déglu yëpp maa ngi siy déglu ñu ngi naan biram dafa réew biram dafa sàcc la biram lii la laala dafa soxor dafa lii dafa la un peu de respect waaye ndaxte ñii ñuy jox ñii ñuy xas ni ñoom mel nañu noonu waa dafa di rôle bi dañ leen dañ leen ko jox pour ñoom ñu jouer ko waaw bu si kenn pour ñu ñëpp ñu gis suñu bopp daal mais un peu de respect xam ne tamit aussi ay kilifa lañ xam nga xaw ma leen nag mais xam naa ne ku nekk kilifa nga fi nga nekk nañ nañ daw a respect daal a dugal mooyu manque de respect yi ñu siy dugal ay saaga ay dafa réew wala dafa soxor wala dafa li wala dafa laa nañ ko arrêté daal di jéggalu nag a ah, bu fekkante ni audio bi gaañ na maa ngi di wax nag Birame moom nar na tas këru magam bi parce que bu sàccee or yi meram lañ koy jiiñ waaw Mariam lañ koy jiiñ parce que dañ naan lu mësul am si kër bu fa amee rek gan gi ñëw a tax mu am mais may waxaat si euh, mm, xaritu jalika bi man dama xamu ko ndax nit la wala moom tamit lan la parce que moom tamit bu fekkente ni dafay wujjeeg jalika ba léegi ba sëyeeg biram bay wujjeeg doomam ba anniversaire am la moindre chose mu xam nu muy doxalee wala xam nu muy waxee mère Diagne aussi tamit. moom tamit euh, ni muy doxalee tamit euh, si mag ak goro rafetul moom tamit na jéem a yemale xam ne njaboot la xam nga kuréel bi ñu ko jox moom macha allah nit ñi moom ñu bëri ñu ngi koy dund mais macha allah baax na. mais na na kii daal na rafetal daal xam ne njaboot gi moom moo leen njabootee waaw di leen wax nag comme lu ma leen doon wax rek si kaw si kanam rek waaw bu leen xool dara bu leen gis dara jàpp leen rek tawa baa dina baax incha allah si barke Sëriñ Babacar si dina baax di wax encore une fois sama mbokku jigéen ñeeg yooyu ñu bàyyi ñu wàññi daal ñu wàññi parce que maa ngi dégg sànq ñu ngi wax mère Diagne wax boo xamante ni te xam nga mag la te sama suñu fans la te aussi tamit yàgg nañoo bégal waaw macha allah si kaw si kanam. waa asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié waaw ah, maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne macha allah macha allah seen film bi neex na am na sens neex na am na sens yàlla na leen yàlla jàppale ñu yàgg di leen seetaan neex na am na sens leen daal laaxam xam Jalika moom wan na jikkoom wan na jikkoom moom da doon wan ne xaritam la mais du xaritam dafa ñëwoon pour nangu jëkkëram mais xam na ni jëkkër ji. jëkkër ji xam na ni moom li ko kiyee daan muñal di jël alalam di ci def du du ci fekk Jalika te parce que Jalika dafa xam lépp kii joor joor kon dafa xam lépp Jalika dafa xam lépp ci Jalika moo tax instant yi moom munu la may dara jëkkër ji mais doom ji moom fatt na ko fatt na ko trop doom ji moom dafa war a dem ci yaayam parce que ku bañ yaay rek doo bëgg doom ku bañ yaay rek doo bëgg doom doom ji moom dafa war a delluwaat ci yaayam mais kontaan nañ ci yéen trop kontaan nañ ci yéen yal na yàlla kontaan ci yéen. asalaamaaleykum lu xew TV yéen a ngi jàmm bu baax a baax nuyu naa ñëpp ziyaare ñëpp ñëpp yéen a ngi si jàmm bu baax a baax a baax ah épisode bi passé maîtresse bi moom neex na trop trop trop neex na trop macha allah waaye Jalika naw naa ko trop. naw naa ko naw naa ko trop waaw lim att bi defar def rafet na lool lool lool rafet na macha allah waaye joor moom ah joor moom mi ngi bëgg a ëppal de joor moom mi ngi bëgg a ëppal moom mi ngi bëgg a ëppal moom daal mënta supporté jalika a ah, doy ne waar nag doy na waar jalika moom def na foofu moom att rafet man moom toujours sama message yi yéex man ndax Europe laa nekk xam nga liggéey beeg yooyu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant di rafetlu liggéey bi ngeen di def parce lii day yokk xel rek day yokk xel ci lépp ak tamit day avancé loolu lépp comme ça nit ñi ay temps dangay seetaan film mer bugg wax sa xalaat doo xam foo koy waxee bugg wax li la naqari doo xam foo koy waxee mais lii moom. lu baax lu gën la ñun moom ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla fay parce que ñun tamit série yi tamit moom lañuy seetaan suñu xol di neex comme ñu ngi Europe nekkuñu Sénégal waaw soo amee stress yenn saa yi nga seetaan ci série yi rek sa xol neex waaw waaye nag euh, nuñ koy waxee kii joor joor moom war rôle bi muy moom war ngeen koo changé parce que joor moom ni muy def Amina neexuma dara dara dara dara Amina xale la xamul dara man kay lu ma gisaan ci temps wu njëkk ya nit buñ la takkee da ngay sa sa jëkkër su amee doom yow da ngay bëgg doom ji ak loo sikk-sikk dangay bëgg xale bi mais joor dafa ñëw rek bañ Amina loolu ñu koy seetaan tamit du leen neex de ñun ñi nekk fii nga xam ne suñu njaboot yi ñenn ñaa ngi fii ñenn ñi nekkuñ fi moom loolu moom loolu moom duñu mën a neex ci suñu xol yi ndax yaay jiit la toujours dafa war a baax ci ci ay xale waaye nag joor amul doom moo tax amul doom moo tax bu amoon doom dina xam ne xolu ni ni doom di def ci xolu ndey waaw am na sax ñi nga xamante ne sax amuñu doom te dañoo bëgg doomu jàmbur dañ koy jàpp comme seen doom waaye joor moom ni muy doxalee ci film bi moom ah war nañ koo xoolaat ñu changé système bi waa kay jërë ngeen jëf merci beaucoup ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla continuer série bi ba série bi jeex dugg ci beneen yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def di wax Lalla nag moom it moom it mer day jeex mer day jeex waaye bëgg a continuer rek chaque jour ci mer bi rek rek rek te ne dafa bëgg seex yow kay boo bëggee moom da tax gumbalu fàtte yenn waaye bëgg ba pare di forcer di kii nii ah forcer bu metti baaxul de baaxul dalay dugal ci loo xamante ne doo xam noo koy defi nee ko mu wàññi tàmpare maayam na moom amul benn problème ci série bi amagu ci problème xamaguñ nag waaw bëgg na kaf bëgg na ree bëgg na ñaawalaate <laughs> xam naa ne bu melee noonu ci vraie vie moom ku mujjeel nga bàyyi ko fa